monsieur maire Bara Gaye maa ngi lay nuyuwaat. maa lay fay euh, Chérif. Mm-hmm. lan la maire di wax boo gisee image yi. Euh, lii la ñu dëkkee malheureusement euh, c'est ñu ngi leen di gërëm bu baax ci reportage bi muy wane beneen facette Dakar parce que lii boo ko comparé ak li nga xam ni moo xew biir Ndakaaru ministre renouveau urbain di xëccoo place bu mu war a aménager nga ñëw gis lii mu nekk ci banlieue bi war nañu def ay interrogation pour wax ni logique d'aménagement du territoire au niveau national lépp la parce que politique gu état la donc bu amee ñenn ñoo xamante ni dañuy am enveloppe bu taxawuñu war ko mën a def fenn amuñu place bu koy def ba xëccoo te ñun ñu soxla ko te dëkk ci biir région de Dakar donc loolu paradoxe la malheureusement nag nii la ñu dëkkee Yeumbeul Sud bokk na ci quartier yi nga xamante ni dafay taa taa bu méttee métti euh, ba tax na bu nawet ñëwee casse-tête la pour bépp maire bu nekk ci banlieue bi malgré milliards yi ñuy wax ni dugal nañ ko ci wàllu inondation naam am na lu ñu jot a def mais des na lu bëree bëri mm-hmm. ndax li nga xamante ni moom mooy premier phase du projet mm-hmm. moom moo taxoon ñu am euh, yenn système de canalisation yi pour le mm-hmm. drainage des eaux usées euh, des eaux pluviales aussi Euh, mais deuxième phase boobu ñu ngi koy xaar ba léegi ñëwagul yaakaaroon nañ ni dana bokk ci li nga xamante ni mooy euh, projet yi président de la république indi ci banlieue bi mhm. malheureusement pour le cas de Yeumbeul dañu ko tëb te xamuñu lan moo tax ñu tëb ko mhm. sunu naataango yëmbal Nord bénéficié wu nañ seen deuxième phase mhm. alors donc mille huit cent milliards yi nga xamante ni euh, conseil local conseil des ministres délocalisés prévoir na ko ci pour Dakar Yeumbeul Sud du bokk ci ba tax na sur le plan environnemental mhm. gis nga li nga xamante ni moom la ñuy dund metti na nag ci ñun ñi nga xamante ni mhm. ñun ñoo yore responsabilité locale yi mhm. parce que lu mu metti metti même su fekkente ni dafa dépasser aussi li nga xamante ni mooy say domaine de compétence yow en tant que maire mënuloo ci bañ a def dara parce que population bi mënoo togg di leen xool ñuy dund ci ndox mi ba tax na li ñu mën rek mooy ay mesures conjoncturelles à mhm. chaque fois mu taw nga indi say motopompe indi mhm. say hydrocureur des fois mhm. nga indi même euh, loo leen jàppale ci wàllu dund dimbali leen ba ndox mi jóge foofu mais lii pour régler ko il faut des mesures structurelles yoo xamante ni moom mooy régler à jamais cette question des inondations euh, est-ce que jokkoo nga ci ak kilifa yi ñu wax la lu tax ñoom ñu tëb sa commune dem ci beneen commune bu nekk ci même zone Euh, waaw loolu xañ na euh, président de la république moo ñu ko war a wax. Euh, ndax yow en tant que maire nga leen. waaw xam nga avant président di ñëw dañu ñu laajoon lan mooy seeni difficulté mhm. yéen communes yëpp. jaarale ko ci ñi nga xamante ni ñoo fa nekkal représentant président de la république notamment le sous-préfet des Niayes ak le préfet du département de Pikine mhm. comme ni ko sunu collègue yëpp defee noonu lañ ko defee woon lan mooy sunuy problème bindoon nañ suñuy problème yóbbu malheureusement la ñu bindoon yëpp teniruñ ci en compte mhm. ba tax na rappel rek la ñuy def parce que mhm. projet yëmbal dafa bokkoon ci programme de gestion des eaux pluviales boobu mhm. loolu moo ñu mayoon depuis 2010 ñu amoon ci programme boo xamante ni moo indi tali karo yi mhm. xotti yi kaw bi def fa benn système de drainage des eaux pluviales mhm. yóbbu ko ci yenn bassin de rétention yi et ñu interconnecté lac yi pour mën ko yóbbu ci lac wuy ak lac wuruwaay alors deuxième phase projet boobu dañ ci bokk parce que qui peut le plus peut le bu programme bi commencé phase a bokk bokk ak suñuy naataango euh, commune bële même bu ko maire APR dirigé aussi ce n'est pas normal. mbiram politique nga yaakaar ni moo ci rax. ah mais absolument loolu mënuñu ko ci bañ a gis aussi. Mhm. parce que du sax xañ ne dinañ dugg ci beneen domaine bu dul domaine environnement. Mhm. mais yeneen domaine yoo jël mënuñu accepter ñu ne daf nañ wii. mille huit cent milliards ci mhm. Dakar ñun ñu bokk ci communes yi nga xam ne ñu ëpp doole ci wàllu euh, population te mënuñu am ci loolu parce que rappelle aussi que commune Yëmbal Sud mu ngi def cent vingt mille habitants téeméeri junni nit ak ñaar fukki mhm. junni ci ay nit mhm. bala ñoo dem ci beneen reportage bi dañuy taxaw ba léegi ci loolu wax nga projet bi mais bu dee ci wàllu koppar ñaata moom mooy doy ngir saafara lii ci lin gi sànq muy wàllu mbënd ak jafe alors loolu il faut que technicien wu état yi nga xamante ni ñoom ñoo am compétence ci wàllu woowu ñëw évaluer li nga xamante ni moom moo ciy doy mhm. première phase bi nga premier ñaari aspect jàpp nañ ni mooy régler question des inondations benn bi ci jëkk mooy li nga xamante ni moom lañ commencé woon ci wàllu projet muy defar ay système de canalisation yoo xamante ni mooy drainer eaux pluviales yi ñu mhm. continuer loolu deuxième phase bi mhm. ba quartier yi nga xamante ni ñooy quartier yëmbal di mhm. xolu yëmbal Layeen quartier Afia ak quartier yi nga xamante ni ñoo mhm. nekk ay Médina yëmbal ak yooyu. Mhm. ñoom ñu mën a bénéficier wu ci li nga xamante ni mooy deuxième phase du projet boobu. Mhm. beneen bi ci topp aussi il faut une volonté politique réelle parce que dafa am ay quartiers yoo xamante ni. Euh, ay habitation spontanée la. parce que aussi yëmbal il faut la rappeler habitation lébu la. ñaari village traditionnel ñoo composé yëmbal. muy caaray kaw. yëmbal laayeen mm. te ñaar boo ko jëlee habitation lébu la ba tax na dafay ma ay euh, système yoo xam ne moom la ñuy dëkkee mm-hmm. pour nga xotti ay yoon il faut que nga toj yenn kër yi. loolu bu fekkente ni deuxième phase projet bi ñëw na. après bu ñu continuer il faut que état am benn volonté réelle pour def li ñu tuddee la restructuration euh, de cette zone pour que nit ñi mën a dund ci jàmm. Bara Gaye maire Yeumbeul Sud dañ fay des ba léegi wax ci beneen jafe-jafe muy njàng mi ak njàngale. monsieur le maire lii doy na waar euh, diwaan bu ni toll naka lañ mën a def ba amul daara ju mag yoo xamante ni gone yee mën nañ faa jàngee jamono ju naan éducation pour xam nga image yi nga jàllale euh, soo ko dee xool te sa yaram dawul te nga wax ni am nga ay responsabilité ça veut dire que li nekk ci say mbagg comprendre ko li ma dal man en tant que maire juddoo yëmbal dëkkee fa màggee fa mm-hmm. te jàngewuma fa loolu laay bañ mu dal xale yu ndaw yi man juddoo naa yëmbal màggee fa jàngee fa ba pare su ma jàng ñëw tey nekk maire yëmbal te mosumaa jàngee yëmbal pourquoi parce que ay infrastructure scolaire dafa manqué bu baax a baax yëmbal mënuñu nekk téeméeri junni nit je le ak ñaar fukki junni nit amuñu lu may ñeenti école primaire amuñu collège autorité yi gën a mag ci dëkk bi tey jàpp ni am nañu collège ba ci premier ministre yëmbal sud amul collège yëmbal nord moo am ñaari collège Malika am na collège Kër Massar am ñetti collège daaw à travers benn volonté réelle bu conseil municipal bi ñu délibéré nii dañu bëgg collège avant que suñu mandat di jeex problème bi yeneen maire yi doon jànkonteel mooy amuñu woon espace ñun ñu trouver espace boo xamante ni mi ngi biir yëmbal ma 3000 mètres carrés mhm. ñu terrassé ko remblayé ko toog di xaar daaw ma recevoir IEF bi inspectrice éducation ak formation bu Kër ma saar nga xamante ni mooy sunu kilifa ci wàllu woowu waxtaan ak sous préfecture aussi ñu bind requête yóbbu ministère de l' éducation nationale mhm. ñu wax ni premier collège bi ñëwaat ci arrondissement Niayes nga xamante ni quatre commune ñoo ko seq muy Yëmbal Sud Yëmbal Nord Malika Kër Massar premier collège bi fay ñëwaat yëmbal sud la jëm parce que loolay priorité bi mhm. malheureusement bi ñu ñëwee ci conseil décentralisé bi président collège ba mu am Kër Massar la ko indi on ne comprend pas. Mhm. pourquoi loolu. du caagante ni Bara Gaye maire PDS la maire opposition la que lu ñëw dañ ñu ko war a xañ déedéet mhm. suñ ko xañee Bara Gaye xañuñu ma ko man kese intitut personnel. c'est parce que du yàgg man aussi ba ma jàngaatee ci collège boobu parce que mm-hmm. weesu naa fu may jàngee ci collège mm-hmm. boobu mais suñ ñu ko xañee c'est parce que dañ ko xañ ñi nga xamante ni ñooy est que jox na leen explication bu fekkente nga jàpp ne dañ leen xañ ban explication la ba jàpp ni jël nañ ko collège bu yóbbu ko Kër Massar waaw xam nga dañuy wax ni euh, euh, seul l'État à le monopole de la violence état buy def violence da koy def nu mu ko neexee te du la du la du la informer man jàpp naa ni président de la République yëgul loolu parce que mm-hmm. lui c'est le président de la République mmh. yëmbal sud du cent vingt mille personnes ya fa nekk yëpp ñoo may jàppale am na ci ñoo xamante ni njabootam lañ ñu ngi koy jàppale foofu am na ñoo xamante ni ils sont apolitiques te ñun dañu bokk ci réew mi je ne peux pas admettre ñu ne ren ci budget état du Sénégal 33 collège de proximité état du Sénégal dina ko tabax te yëmbal sud am cent vingt mille habitants mënul am collège ba tax na gis nga taux de déperdition scolaire bi nga xamante ni moom lañ lay wax tey ay kaaw mbay Mbayang Diop xaj na dinañ ci ñëw xale yi nga xamante ni xamatuñu fu ñu jëm parce que tout simplement dañuy teel a génn dañuy teel a génn école pourquoi ñuy teel a génn école su fekkee am nañu entrée en sixième nekk xale bu ndaw am 12 ans 13 ans ñu ah, euh, ñu affe ñu orienté la Géejawaay mhm. wala ñu orienté la Malika wala ñu orienté la Caaroy Gaar mhm. mais diggante bi ngay dox di sonn tayal day tax da lay pousser nga teel a bàyyi jàng taux de déperdition scolaire boobu pour ñu lutter ko euh, ci yëmbul sud il faut que ñu am collège mhm. mais li ma mën a wax rek mooy euh, encore une fois de plus état ci boppam moo war a tabax collège à yëmbul sud mais engagement bi nga xamante ni jël naa ko te suma conseil municipal di ma ci jàppale aussi am nañu volonté. foofu laa bëgg a taxaw sax bu ñu état defalul. collège foofu laa bëgg ba avant deux mille dix neuf. incha allah justement parce que dañ ne acte trois décentralisation ñu ne yéen maires yi maintenant même yi. am nañ seen autonomie bopp nga ne am nga espace est-ce du ngeen jël seen initiative bopp pour ut lu ngeen ko tabaxee partenariat décentralisation beeg yooyu nga fi ak tamit lu jëm ci coopération décentralisée surtout. je acte trois de la décentralisation terewul li nga xamante ni mooy suñu juróom-ñeenti domaine de compétence yi nga xam ne dañ ko amoon ci collectivité locale yi depuis quatre-vingt-seize acte trois terewul mhm. véritablement ñu te ba léegi domaine de compétence yooyu. Mhm. éducation ci la bokk mais sur le plan accompagnement. ak mhm. fourniture ñu ngi ciy def lu ñu mën. may mhm. premier maire yëmbal sud boo xamante ni chaque année ñu jël 9 millions jëndee ko ay fourniture scolaire jox ko quatre école élémentaires yi fi nekk. mais wàllu collège tabax boobu état moo ko war a def. encore fois. su ko sunu budget attanoon du ma ko laaj état. mais même suñu budget su ko àttanul danañu trouver bu ñu demee ba xam ni xel ni lii c'est une volonté réelle bu état du Sénégal pour mu bañ ñu defal collège danañu xool yeneen canaux yu ñuy jaar pour mën a defal suñu bopp collège beneen bi ma ciy dolli mooy. ci wàllu éducation mu bokk ci suñuy neuf domaines de compétence ñu ngi ciy bay suñu wàll li ñu mën. bi ñu ñëwee aussi. Euh, école Momar Khary Diop bokk ci école yi nga xamante ni dañu gën a mag ci yëmbal. Mhm. seen directeur amuloon bureau bu mu nekk ñu tabaxal ko bloc administratif. ñëw école Abdou Ndiaye tabax fa salle informatique premier bibliothèque communal u Yeumbeul ñun ñoo ko tabax ci suma magistère ngeen tuddee ko pakoti ñu tuddee ko <laughs> pakoti jërëjëf léegi dañuy wax euh, ba léegi dañuy des ak yow ñu daal di ñëw rek ci yow jërëjëf monsieur le maire euh, seetaan nga chronique bi laaj bi benn rek daanaka ndax gis nañ sa taxawaay boobu ba léegi ba Mbaye ak Diop nekkee ci jafe-jafe ci wàllu yoon ministre saoudien bi yor wàllu bitim réew ñëw na Sénégal am fi tukki ne mais ku ñu doon xaar ne nguur gi dina ci waxtaan ak moom yan nouvelle nga am ci wàllu ci jëm ci état euh, bu Arabie Saoudite waaw ci wàllu euh, tukki ministre saoudien des affaires étrangères jéemuñu ci am nouvelle parce que nag des fois il faut laisser le soin à l'état du Sénégal de communiquer ci yenn aspect yi hmm. parce qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi mënuñu fal njiitu réew mu représenté ñu ci biir réew mi ak ci bitim réew ba pare ñu ñëw di lëñ mbëj loo xamante ni moom la ko yoon dénk donc ñu xam sax lan la waxtaane ak li nga xamante ni moom mooy ministre des affaires étrangères boobu ginnaaw euh, même si fekkente ni mën nañ ci am njort lu rafet ndax bi problème bi di yëkkatiku ci la ministre bi ñëw fii donc mm. jàpp naa ni wóolu naa diplomatie Sénégal mm-hmm. donc incha allah ñoom dinañ ci def li nga xamante ni moom lañ lan lañ ci mujj jàpp kon ci mbirum Mbayang Diop mbirum Mbayang liñ ci mën a jàpp mooy euh, li ñu doon wut comme information fan yii yëpp mooy xool ba xam mi ngi ci jàmm wala nekkul ci jàmm alhamdulilah dégg nañ ko ci jàmm mm. euh, par le biais de l' ambassadeur son excellence Cheikh Ahmed Tidiane Sy mm. ambassadeur du Sénégal euh, à Riyad man mii woo naa ko téléphone maa ko woo téléphone ginnaaw bi mu communiqué ba pare parce que am nañu lien yooyu. Mhm. woo naa ko téléphone. Mhm. rassuré na famille bi nii Mbayang fekk na ko si jàmm bien que affaire bi affecté na ko mais mi ngi si jàmm. Mhm. mais am na yoo xamante ni duñ ci mën a dugg. parce que tout simplement nañu bàyyi diplomatie bi ñu def li nga xamante ni moom lañ ci war a def. mais li ci gën a am solo aussi mooy. bàyyiwuñ ko benn yoon bi combat bi commencé ba léegi aussi nit ñaa ngi koy taxaw ñuy gërëm sénégalais yi nga xamante ni ñoo koy jàppale yëpp. di communiqué mhm. ci li nga xamante ni mooy kaawam ba tey mu wër àdduna wërngal këpp. mënoon nañ ci wet te bu boobaa doon na metti trop ndax dañ ko xamoon mu bokkoon ci xale yi ñu doon fréquenter euh, par conséquent mënul woon am problème bii rek ñu fàtte ko benn yoon. ba tax na aussi may remercier bu baax a baax le pool d'avocat bi nga xamante ni moo nekk barreau Lyon te acceptellement ñëw jël li nga xamante ni mooy dossier am maître Aminato Sonko mhm. euh, déposé na demande de visa pour am euh, visa Arabie Saoudite donc bu paree dana dem. moom ak maître Pierre Fronton mm-hmm. incha ñoom ñooy coordonné dossier boobu c'est un mm-hmm. pool de sept avocats du barreau de Lyon y compris même le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon ñuy xaal aussi yenn avocats sénégalais yi nga xamante ni pare nañ pour jàpp ci yu nekk barreau Dakar euh, ñu mettre leen en rapport avec euh, ceux du barreau de Lyon comme ça ñu mën a gën a jàppale suñu naataango boobu mm-hmm. mais li ci am solo rek mooy fi ñu toll nii du moment où il a mort li ñuy wax rek mooy aussi Clémence parce que diggante Sénégal ak Arabie Saoudite dëkk yoo xamante ni la seen lien dafa fort ba tax na jàpp naa ni mbay ak mën na ci génn ak jàmm. am na solo Bara meeru Yëmbal Sud moo nekkoon sun gan ñu ngi lay sant la gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média ñu dem ca Louga foofa na